Nous avons encore une fois nous euh, di euh, euh, au cours de cet entretien peut-être survol

mentor mu am ko fofu ci université à travers euh, le mouvement des élèves et étudiants républicains ama amaat ko aussi euh, fofu nga xamanteni mom modi moo di euh, bi nga xamanteni mom mo moo ndaw yi nga xamanteni ñoy yëngu ci wetu président Macky Sall koku buñ ko waxé xeyna na xel yi dinañ dem ci doomu kenn ci jareer Jarer, suñ ko waxé xel yi day dem ci ki nga xamante mom modi Thérèse Faye di directrice de l'agence euh, nationale euh, bi nga xamante mom mo euh, yor li di petite enfance yor tamit li nga xamante mom modi la case des tout-petits Thérèse ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog suñu mbokk internet yi. merci beaucoup Sadibou. Mm-hmm. ma ngi lay di nuyu di nuyu équipe Dakar actuel mm-hmm. di nuyu ñi nga xamné ñu ñoom ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci diaspora d' accord Thérèse euh, xëy na tey dañuy def benn euh, waxtaan boo xamante ni ça de manière un peu décontractée maanaam dañuy waxtaanee ci lépp donte sax euh, dinañu ñëw ci yenn point yoo xamante ni moom moo gën a saillant moo ëpp solo waaye fi ñuy tàmbalee donte sax am na ñu la xam ñu bëri waaye ñu ñëw un peu ci li nga xamante ni moom moo di sa parcours ak li nga xamante ni jot nga ko def ci cadre maanaam liggéey. liggéeyal sa réew notamment à travers l'université ak li nga xamante ni def nga ko COJER waaye tey ci xayma euh, engagement boobu noonu nga amoon euh, nan nga ko mën a jàngatee bi nga ñëwee depuis boobu nga ñëw ba fi nga xamante ni moom nga yor euh, tey muy agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits ban jàngat nga ci mën a def ban analyse par rapport ak li nga jot a parcourir foofu yëpp de manière assez ramassée. bon merci beaucoup wax ci sa bopp moom du loo xamante ne euh, xaw na parce que je pense que nit ñuy seetaan bi ñuy observé tout le temps mhm. ñoom ñoo xëy na gën a habilité pour def des jugements sur nous wala ay observation ci li nga xam ne mooy mooy suñu méthode de travail ak ni ñuy liggéeyee bu mhm. donc may wax ne que Thérèse moom euh, je suis madame Diouf déjà je suis mariée depuis 2009 mhm. euh, je suis mère également euh, ay doomu jigéen ñi moom yàlla jagleel maa ngi fatik Fatick astafurlaay maa ngi juddoo Diarère. Diarère jàngee fa. Euh, ba moom laa amee sama certificat ma dem également fi nga xamné mom moom mooy mm-hmm. rejoindre les parents. Mm-hmm. Euh, fa laa amé sama BFEM fa laa amee sama bac au lycée Coumba Ndoffène Diouf di mm-hmm. ma paré lañ ma orienté. au département de sociologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar foofu laa amee sama maîtrise euh, en 2010 soutenir également sur un thème important, c'est-à-dire euh, les rapports entre presse et pouvoir au Sénégal. Mm-hmm. Le groupe, le cadre du groupe sur communication, Tila laa également ci étude études de de pigmentation artificielle mm-hmm. liggéey également ci question de nga le système de rémunération de la presse la gestion des journalistes la question de l'information tout ça ligué nañ ci àll et je rends un vibrant hommage vraiment di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla xare àjjana muy Pape Malick Fall bi nekk comme groupe parce que à l'époque il faisait partie des personnes ressources yi nga xamante ne il nous a fait à bras ouverts sur la Bourguiba pour accompagner ñu mais aussi mes pensées vraiment à koo xamante ne jàmbaar la presque ñëpp xam nañ ko di maam les camarades donc aussi il nous a toujours encadré bref noonu la euh, bi aussi université mhm. Thérèse moom daa ñëw rek dugg ci syndicalisme mhm. waaw loolu aussi j'étais à la faculté des lettres comme ni ma ko waxee léegi sociologie laa nekkoon euh, nekk ci liste bleue mhm. xam vraiment may xalaat aussi sama xarit yi nga xam ne ñoom laa bokkaloon combat. jamono jooju amoon na liste rouge liste jaune liste rouge liste jaune. donc c' était vraiment passionnant xam nga ma ciy xalaat waa waa groupe Kikondo malgré cette donc quand même joola mm-hmm. organisé méthodique mm-hmm. mais manière nekkoon seen jigéen nous may woowee mm-hmm. donc euh, coordonnée naa aussi la coalition blanche en tant que directrice de campagne ah, ligue na ci lu bari et lolu dafa nek ay moment yo xamné ne fay forger bép ndaw boo xamante ne jaar ci amicale faculté euh, parce que day tax nga gëna xam yan relation nga war gëna développer ak nit ñi pour gën a affirmer sa leadership mais aussi day gëna tax

donc maa ngi fàttaliku ndeysaan yal na ko yàlla xare ajam moom tamit suñu doyen à l'époque Saliou Ndiaye mhm. euh, vraiment euh, combat étudiant euh, dafa métti mhm. donc ba nga xam toute une administration souvent mooy mobilisé mhm. sur des questions très précises et tant que étudiants yi amuñu satisfaction ñoom du ñu am et au delà même des difficultés universitaires je peux dire au sommet c'était quand même des moments de lutte yu taxaw parce que maa ngi

faculté bi doo mën a am accès sax ci amphi bi doo dégg sax li professeur bi di wax donc aujourd'hui il y a eu beaucoup d'amélioration il faut le noter parce que tey boo duggee biir campus bi xar kanam bi changé na même côté coût mais aussi côté administration pédagogique bi parce que amphithéâtre yaa ngi yokk gouvernement bi mu ngi def macha allah ay ay ay ay initiative mhm. yoo xamante ne euh, am na solo ci loolu donc mhm. bref loolu laa bëggoon wax peut-être au mhm. plan syndical jiite naa fi jom créé ko avant APR après cela, nous ñu créé APR ma mouvement des élèves étudiants républicains mhm. jóge foofu dem ko gère mhm. bon jóge foofu je continue à gérer ma mhm. mairie c'est la commune de de Diarère donc euh, ñu lay féliciter parce que déjà yaa ngi impliqué wu euh, gis nañu ay activités yoo xamante déjà sax mënee nga ko au niveau de de votre commune de Diarère donc foofu xam naa dinañ fa ñëw ci kanam tuuti waaye euh, au plan international aussi parce que comme comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde c'est l'ouverture maintenant. Mhm. Donc euh, au niveau des instances de, de CGU, mhm. bon dit que le réseau des jeunes de d'Afrique de l'Ouest. il un petit Covid bi y a na ci petit parce qu'il y a pas mal d'initiatives pour maintenir un moment pour Maroc Sénégal Zambie. Mhm. pour c'est une nomination récente. c'est une élection récente. C'était en novembre à deux. ok. d'accord waye waaye yeb dinañ ci dinañ ci ñew te ñu ngi lay d'ailleurs ñaanal que nga am succès ci vraiment élection yoy nga xamanteni fi mu aboutiré di fatali né rek même su féké peut-être ñew nga ci cursus bi ñew nga ci peut-être li nga xamanteni jot nga ko vivre au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar tay yangi fi nga xamanteni ni modi di APR nek fi ben persona personnalité politique bo xamanteni ni rañé nañ la machallah waye tay dafa am ben bala ñuy ñëw un peu ci li nga xam mom di petite enfance ak euh, la case des tout petits dafa am lu lu lu frappé aduna muy coronavirus ñepp euh, xam ni tay def na ay dégâts def na euh, aussi li nga xamanteni mom modi di peut-être permettre na sax yenn pays africains wala de manière générale beaucoup de pays dans dans le monde ñi nga xamanteni jug nañ di xalaat yan stratégie ak yenn peut-être entreprise lañuy adopter pour mëna de faire face ak li nga xamanteni ni moom jafé jafe-jafe yooyu euh, yow en tant que peut-être membre euh, de l'APR et même en tant que peut-être faisant partie de de la mouvance présidentielle nan nga jangaté de manière globale mbass mi nga xamanteni frappé nañu ak taxaway bi nga xamanteni Sénégal amna ko ci. Euh, merci beaucoup limay wax rek moy di wax ni ko rek ñu ngi ñaanal képp ko xamné yalla war na la ci mm-hmm. jëlé na la ci yalla

Euh, mën nañ ko jàppee à deux niveaux mhm. analyse euh, au plan mondial par exemple géopolitique bi mhm. lu mu amee benn renversement de situation bu ci am mhm. ba nga xamante ne tey jii nii euh, état bu ci dëgërul rek mën na ci sooxe donc loolu nag ñu ciy rafetlu vraiment le leadership du président Macky Sall parce que am na ñu bëri ñoo xam ne tey bu ñuy wax Sénégal du ñu xalaat ne que États-Unis moo ñu ëpp doole foofu Mhm. te la Covid bi di rey mhm. ñaanuñu yàlla un mhm. tiers bi sax mu am fii ci biir réew France pareil yeneen dëkk mënoon naa listé, dëkk yu bëri nga xamante ils sont en train aujourd'hui de vivre une situation très difficile et pourtant rien, nous nu ñu koy développé au plan politique ak jugement yi ciy def parce que dafa am situation yoo xam ne bu amee gis nga li nit ñi di gën a soxla la question des partis politiques mais day laaj patriotisme

du am une semaine bu nga dañuy rencontres internationales à travers euh, les visioconférences mm-hmm. ay webinaires un peu partout dans le monde mm-hmm. pour man par exemple le secteur de l'éducation, il mm-hmm. y a de sérieux problèmes ah, mondiaux nan avons def ba euh, l'éducation dans dans dans les rails Nous dafa expérience yo xamante fu faut que ñi ça dépasse sax fu ko foog mais ci stratégie yooyu nga nga nga nga baal ma ci stratégie yooyu toujours euh, parce que tey euh, mënuñu tay président de la république wo ñep ñep ñew bon comme niñ koy tuddé défilé ñew palais etc pour répondre peut-être ci li nga xamante mom modi moo di euh, feebar bi ni mu fi ñëwee président bi woo ñëpp ñëpp ñëw nangu malgré peut-être les divergences politiques ñu nangu ànd ak moom ci xeex bi tey mu jékki-jékki dem ba ci biir indi yeneen adopté yeneen mesure yoo xamante ni tey après euh, xelu nit ñi xaw na tey tuuti euh, tey par exemple bu ñu ñëwee ba mu ne euh, doonatul loo xamante ni tey par exemple ñëpp dañuy ñëw voilà couvre-feu bi respecté tuñu ko mesure yi assouplir nañ ko mu dem sax ba ci biir daal di wàcc daal di bàyyi lépp ne léegi nañu respecté mesure barrière xam nga tay loolu c'est un peu contradictoire xam question boobu man mas naa ko wax quelque mm-hmm. part. Mm-hmm. ma ne leen ay dëkk yu mel ni Suède pourtant mosuñoo confiné am na ay dëkk yu bëri yu nekk ci Europe mosuñu def confinement mosuñu def couvre-feu mosuñu def état d'urgence. Mm-hmm. et pourtant feebar bi mu nga foofu noonu option la ba nga xamante ne état mën na ko am et puis état bu ko développé il a ses raisons. dama doon wax léegi te pareegu ma ci li nga xam ne moom mooy géopolitique bi au plan mondial. Mhm. coronavirus nan la bouleverser situation yi ak nan la décideur yi nekk di réajuster pour mën a faire revenir les situations des états à la normale. il faut mhm. loolu xam ne que c' est pas une petite affaire te secteur yëpp la la mhm. donc tey suñu ñëwee au Sénégal président de la république lu mu def ca njëlbeen loolu la waroon def te def na ko mooy woo askan wi yëpp nit ñi xam ne que li ñëw ci réew mi musiba la te musiba boobu noonu. bu buñ ci xaar état kese. képp ku nekk foo mënta nekk ak foo mënta bokk dañ ci am part de responsabilité et puis comme ni ma ko waxee léegi rek dafa am situation bu amee fu mu toll dañuy jël parti politique yi teg ko fan xam ne tey jii nii balaa ngaa ne Sénégal balaa nga ni damaa bëgg a dem fii wala damaa bëgg a am li daa fekk nga am wër bu yaram am sécurité. Mm-hmm. te loolu kenn mënu ko garantir ku dul état. Mm-hmm. donc c' est le moment quand mm-hmm. ñu gën a resserré wu. gën a jàppale état ci décision bi nga xam ne mu ngi koy par rapport à ce que nous avons ba nous biir ñu changer dynamique mais il y a toujours une chose la mm-hmm. na situation de départ la mm-hmm. situation d'arrivée wala dans le long ou dans le court terme mm-hmm. mënta nekk bien. parce que tout publics sont déterminer déterminé, li les éléments du contexte les éléments d'appréciation que nga xam chef bi par exemple la situation de départ peut-être moo exiger à ce que le président jël une décision bu ñu déroulé ba ci biir gis ne population yi seen bopp. Mhm. marché yi le fait que ubbeetu am na fu mu sooxee économie bi. Mhm. li nga xam moom mooy transport bi doxatul am na fu mu sooxee secteur transport bi. Mhm. éducation école yi tëj na am na fu mu nar a naroon yàqal xale yi nga xam ne dañoo war a def examen. mënoon naa li yeneen secteur ba ci yenn ci presse bi sax. donc mal nécessaire nga ko ah, jàppee. Ah, loo xamante ni tamit mën na dem ba lor nit ñi tamit. loolu il faut ñu sóor ko. Ah, et puis le président a bien fait quand il dit ah il faut que ñu coronavirus mais mënuñ ko bàyyi ak suñu bakkan bàyyi ko ak suñu économie ça veut dire quoi nous hmm. war di continuer di protéger wu ci feebar bi mais aussi waruñ ko bàyyi suñu économie c'est-à-dire mënuñu top hmm. confinement ak yenn mesures yi hmm. ba économie réew mi parce que les deux vont de pair tey dit nii bu ñu demee ba économie bi sooxe xëy plan yi ñuy teg yëpp pour mon affaire xeex Covid bi dootul mon a donc moo tax gis nga il faut que les gens ñuy am une bonne foi

mooy ne que bu nañuy def toujours une étude comparative waaw même si on n'a pas le temps de creuser ce qui se passe ailleurs. Mhm. baax na yenn saa ñuy gëstu tuuti sax. Mhm. ba xam dëkk sangam lan moo fa par rapport à mhm. telle situation ñun nan lañ ci taxawee. d'accord parce que dina gën a tax ñun ñu xam. bu ñuy juger suñu gouverneur dinañ xam ndax ñii lu ñu def est-ce que waroon nañ ko def ou pas moo tax man dama jàpp ni que daal très sincèrement suñu demee ba ay fondation Qatar man j'ai fait 72 heures yoo xamante ne on tenait des réunions avec euh, avec l'ensemble des décideurs du monde sur des questions d'éducation de 5 heures du matin à 11 heures te li nga xam ne moom mooy njàqare gi nekk Sénégal moo nekk ci njàqare dëkk yooyu nag te c'est des puissances yoo xam ne tey kenn mënu la naataable ni que amuñu xaalis. Mhm. kenn mënu la table seen système éducatif performant mhm. mais il y a des problèmes parce que tout simplement il y a une maladie qui est là et c'était un problème de santé. d'accord kenn mënu ko jël d'accord ci implication yooyu bon ci implication bobu autant pour moi euh, tay gis nañ ni président au-delà bon naturellement ñi nga xamanteni sax bokk ñok mom parti buñ ko jàppalee euh, voilà ñi bokk ak mom parti euh, c'est vrai que ñom dañ ko wara jappalé forcément parce que mom, euh, ak mom ak peut-être collaborateur mi ñoy liggéey donc de manière vraiment étroite waye tay activités yi nga xamanteni ni jot nga ko mën feulé au niveau de votre commune ak peut-être même sax yi nga def fi dans le cadre même de la lutte contre le coronavirus nan nga ci démé ak par exemple regrouper les ressources qu'il faut pour essayer donc de combattre la pandémie. Euh, euh, si on est si on, vous dit que vous êtes leader, que mm-hmm. vous êtes responsable de, c'est parce que vous nga que responsable de vous c'est pas grave. Mm-hmm. ba tax na toujours dans la tête que c'est un devoir moral mm-hmm. de réussir et c'est un devoir moral également de faire face à certains défis man non lay réfléchir mbir bu amee am solution ñun à Thiaroye bi Covid bi il y a une situation parce que déjà période bu mu ñëw euh, booy waaj nawet dëkk bi day xaw a même si c'est pas à Thiaroye c'est un peu partout dans le monde bi Nous ñu ne marché yi tëj nañu ku yoroon sa nag sax doo gis foo ko jaay ku yor sa xar doo gis foo ko jaay ku yor sa dans ce donc ci comme président il y a 69 milliards de dollars ci ministère euh, de de l'équité territoriale pour nous, appuyer les ménages ci nous ñu état 2410 ménages 1710 710 ménages yi def ñu si la au niveau du conseil municipal yan réajustement lañ mën a def dans le budget parce que état aussi jox euh, facilité pour nous pour ñu def ko li ci aussi l'union ñuy on n'est pas là pour rien on n'est pas maire pour rien li ci des ñu dugal suñu loxo suñu poche pour nous ko compléter pour nous a dimbali suñuy askan ba nga xamante ne ñii duñu wax ni am nañ ñii ne am parce que l'autre ci aada si réew pour nga dugg ci benn kër jot kii bàyyi kii. Mhm. loolu man du ma surtout gox boo xamante ne. Mhm. lépp loo bëgg suba ba jant suuf ñun ñu nga ca di la jàppal. Mhm. loolu moo ñu guidé avant loolu aussi ñun école yi bi ñu di équipé boobu école yi. en kit scolaire président de la république. décide wu ça la fermeture des écoles. imam yi mosquée un peu partout ñu def li nga xam ne war nañ ko def mais aussi ànd ci ak ICP parce que ICP yi ak Croix-Rouge ñoom ñooñu nous jël les devants sur la sensibilisation nous mm-hmm. accompagner avec le dispositif qu'il faut ñëpp daal di ci village mm-hmm. sensibiliser ñi ñu wax ak ñi donc nous c'est côté jaar mais buñ ko gisee euh, nañu nous ne que rek rien n'est impossible dans la vie mm-hmm. il suffit juste d'avoir cette volonté et je sais que pas mal de maires parce que du man kese maa ko def ay collègues yoo xamante dama di rendre hommage ils se sont débrouillés pour nous ñëw aux côtés de l'État ci cadre boobu am na yeneen responsable politique par exemple yu nekk foofu au niveau de la commune yoo xamante ni indi nañ sax au moins seen contribution au niveau de la mairie pour bon voilà jàpp def ñëw apporter seen euh, contribution vraiment xam nga dans chaque village day am ay association association yi aussi ñoom dañuy cotiser lu ñu am jënd seen eau de javel mhm. jënd seen kii euh, gel ak seen i saabu mhm. joxe ci seen depuis yi ndax yooyu c' des actions très normales c'est des actions sociales et puis quand nekk da ngay sentir ne tu as l'obligation ou la nécessité quand même de faire quelque chose. Mhm. mais il ma bëgg wax daal que mhm. c' un devoir mhm. que population sans pire ne en tant que démembrement de l'État nous sommes à leur côté mm-hmm. et ça nous l'avons fait également avec la supervision des autorités administratives mm-hmm. sous-préfet préfet gouverneur mm-hmm. moi je nuyoo la le gouverneur gouverneur de Fatick d'accord également sous-préfet d'accord de euh, sous-préfet de D'accord, euh, allez-y allez-y allez-y allez-y non dama wax que côté agence quasi du côté parce que autre dimension. voilà Fof la bëggoon ñëw d'ailleurs euh, voilà depuis euh, avril 2012 a ngi au niveau donc de l'agence euh, tey. en termes de de avant nous ñëw juste ci li nga de la gestion Covid bi en termes de de bilan de réalisation etc. est-ce que vous avez peut-être quelque chose à mettre sur la table pour inter de Dakar Actu à mi-parcours parce que nous avons la fa aussi c'est pas mal de choses. Mhm. on a boosté aussi beaucoup de choses. Mhm. Parce que euh, petite enfance nous ne dit dañuy que c'est le parent du système mhm. mais suñ ko jëlee ci li nga xam ne ODD 4 euh, définition wala orientation ci par rapport à la petite enfance où les Nations Unies recommandent les États pour que nous rendions obligatoire la prise en charge de la petite enfance c'est-à-dire nous bañ dire jël affaire xale rek affaire préscolaire jàpp ne luxe la mais dafa nekk une nécessité parce que xale li nga xamné ne am solo té ñëpp war ko xam mooy ne le développement mhm. euh, du cerveau de l'enfant. à 90% vingt dix mu ngi développé mhm. avant deux ans mhm. ba nga xamante ñun lu wax affaire éveil et stimulation précoce dafa am solo c'est à dire xalé bu juddoo dafa war a nekk ci environnement boo xamante ne neurones yi nekk ci boppam dañuy gaaw a interagir mën ko jox xel. mu mën a gàpp une intelligence boo xam dafa effectivement mhm. su ma ñëwee ci réalisation yi nag. loolu nag boo gisee ni ma ko waxee noonu il faut mu am tout un système boo xam ne mooy accompagner euh, mbir moom pour que xale bi. bu mhm. juddoo rek ëllëg bu nekkee mag nekk mag boo xam dina jëriñ askan mhm. ñun ñu ngi fekk le taux brut de préscolarisation au Sénégal à 11,7 point tey ñu ngi presque 18. en 2012 en 2012. donc tey ñu ngi ci 18,7 pour cent. loolu nag boo ko gisee. partenaires yi jàpp nañ ci waaye état aussi dafa gën a takku mhm. augmenter ressources yi mhm. waaye aussi acteurs yëpp gën a unir autour danaa la petite enfance mhm. am na projet yoo xam ne bi ñu ñëwee fekk ko fi dafa doon tàmbali. ñu automatiquement dañ ko accélérer ba tey si des projets phares à l' agence. muy le projet connecté la petite enfance. mu nga xamante ne dans toutes les cases de petite la plupart dafay fekk ay salles multimédia. suñuy partenaire FDC. comme tey euh, li nga xamante ni doon na lu bees li ngeen euh, innover bu yàggul muy mu jëm ci toujours ci maanaam yee xale yi et cetera mën nga ci ñëwaat tuuti. waaw muy la plateforme on a lancée récemment Kayoufu. Mhm. lolu suñ ko waxé mhm. ça entre dans le cadre de l'iva do wax légui éveil stimulation précoce. nañ la ñuy ba xelu xalé yi. Mhm. gën a gaaw a ubbeeku ci loo xamante dina baax. parce que euh, programme boobu bu ñu né connecter les tout petits on avait les machines. mais il n'y avait pas de contenu donc il fallait des contenus contenu yoy moy Sénégal amna presque un répertoire de plus de 400 contes Sénégal amna un répertoire de plus de. 135 jeux et jouets traditionnels etc nous ñu il faut ñu digitaliser li nga xam ne moom compte yi ak jeux et jouets traditionnels mhm. ay tiax ay léeboon et cetera mhm. yooyu yëpp ñu dugal ko ci li nga xam ne moy machine u xale yi mhm. bu ko défé ñoom bu ñu ñoté rek non seulement dinañ allier modernité ak tradition ndax à travers les machines ñoom dinañ am accès à leur tradition suma joggé jógee ci affaire connecté bi mën naa wax que nous on a trouvé un modèle boo xam bu ñu ñëwee dañ ko changer ñu changer modèle bi tey ñu ci tabax

mais il faut partenariat aussi. Nous mhm. ñu mhm. on l'a réussi. Mhm. Masha'Allah, parce que l'UNICEF UNICEF il appuie l'agence très sincèrement. côté formation renforcement de capacité côté équipement un peu partout initiative de ñu qui da ciy def de mhm. ak mhm. la banque mondiale a financé un projet à hauteur de 43 milliards même si l'approche est multisecteur dañ mhm. bokk ak ñeneen euh, direction de l'éducation préscolaire ak direction de l'état civil tout l'écosystème qui tourne autour de la petite enfance donc si xoolee ci xayma prise en charge bi euh, buñ ko xayma pourcentage ci lay prise en charge au bi waaw actuellement 18% bi 18 18%. 18%. ñu war 66 casiers tout petit les 22 ont été choisis pour cette année. Mhm. C'est un peu partout dans les zones d'intervention. Le mhm. lu est ni le Diourbel est Fatik, mhm. Tamba euh, Kolda xam donc jobel Maintenant, l'agence casier ni que daal agence cases tout petit euh, am na fait ñu ko fekk am fait ko tout ci taux de préscolarisation ci qualité intervention yi mais aussi ci multi nu ñu gën a defee ba développer ñi nga xamante ne approche multi secteur bi mhm. nutrition bi ñu ngi koy gën a mhm. peut-être ak pandémie bi am na retard yu xaw a am ci intervention yi mhm. te loolu aussi euh, sadi bi dañ may permettre ma dugg ci benn brèche bu ndaw parce que dafa am lu ñuy wax les nouvelles vulnérabilités apparues euh, euh, euh, comment dirais-je à travers la Covid voilà à travers la Covid muy lan

Euh, mu am beneen boo aussi la question de la sécurité alimentaire loolu aussi mu une problématique boo xam il faut nit ñi gën ko mhm. réfléchir gën ko adopter mhm. pour gën a xool question yooyu yëpp nañ anticiper pour trouver mhm. ci ay solution pour que système yi revenir à la normale parce que xale yi boo seetloo ministère de la santé mu ngi doon toucher yi pour vacciner leen ci biir école yi par exemple chaque fois di nga jàng fiche boo xamante ne école bi day lay demander pour autoriser sa bon, nga autoriser leen pour voir ñiy ñàkk bi ñu ñëwé ñàkk xalé loolu bu fekkee né ne période yi école bi té xalé yi ñëkk ñu leen mm-hmm. donc xam nga loolu da fay melni amna ñom ñoom ñu raté té ñepp ki yi lan la feebar yi lan la ay rougeole la ay poliomyélite c'est des maladies mm-hmm. graves mm-hmm. donc loolu yëpp ba tax na je pense que euh, gouvernement bi ñu ci ciy xalaat mais tamit en tout cas écosystème bi ak partenaire ñu ngi xool nan la ñuy def ba question yi ñu gën sensibiliser la population yi. Mhm. même s'il faut développer d'autres approches. Mhm. pour gën a mën a régler question. d'accord ci approches yooyu sax d'ailleurs euh, la ñuy euh, rebondir un peu euh, pour xool nan nga jàngatee li nga xamante mom modi moo di ndaw ñi nga xamante tay buñu xolé année scolaire bi ni mu ni mu ni mu demee. Mhm. ndax peut-être Covid bi ñëw na impacté na peut-être ci année scolaire bi de manière très négative mais. Euh, en termes d'approche et de prévention il nan a nan nan projeté scolaire pour euh, jouer sur l'équilibre ok il faut me permettre d'abord de féliciter tous les acteurs du système éducatif. Mhm. mais aussi féliciter et remercier le président de la République. Mhm. parce que la réouverture des écoles pour que nous ayons une petite classe d'examen. c'est une volonté du chef de l'État. Et nous avons que une année blanche lu muy coûter état mais aussi lu mu naroon impacté ci xale ak seen waajur dafa métti moo tax gouvernement bi mobilisé pas mal de ressources pour mun a taxawal loolu pour que loolu mun a nekk loo xam ne lu ñuy saafara la. ma ci félicité aussi ki nga xam ne moom mooy le ministre de l' éducation nationale. bu ñu waxee nag de façon générale yan approche la ñu war a gën a développé pour anticiper par rapport ak yi nga xam ne mu ngi ouverture prochaine nous mhm. ñu ngi xaar mhm. parce qu'au niveau de la petite enfance mhm. euh, nous barki démb réunion bu ñu def ak banque mondiale euh, une mission de la banque en ligne ak aussi réunion yi nga ñu entre acteurs Nous ñu ngi xool noonu la def ministère de la santé encadrer le sous-secteur de la petite enfance pour que école buy ubbee ñoom ñu mën a ubbi ci condition yoo xamante leen d' accord ci mbir moomu d' accord muy mhm. mhm. euh, ñu mën rek li ñu desee ci waxtu daanaka jeex na waaye dañuy euh, ñëw tuuti ci question. yu tàng yi comme ni niñ koy waxee yu tàng yi nga xamante ni waaw am na yoo xamante ni tey par exemple il faut il faut que Thérèse fay Diouf wax ci muy lu melni tay par exemple euh, li di déclaration bu récente bi ki def euh, l'ancien ministre de l'état l'ancien ministre d'état di euh, Habib Sy waye tamit ñu ñëwaat peut-être ci ci ci beneen point bo xamanteni mo koy boucler waye bala ñuy aborder point bobu ñu wax touti ci li nga xamanteni mom modi gis-gisu Thérèse Faye Diouf en tant que politique par rapport ak kàddu yoy nga xamanteni Habib Sy génne nako Habib Sy bu mako déggo déggoo j'avoue que ma nangoon la ku ma am estime ci mom mais amna lu mu lu mu ci mom amna na lu ci man je le dis en toute objectivité. Mhm. peut-être ku ku may déglu mën nga xalaat ni que Thérèse da koy wax en tant que politique. Mhm. mais dafa am loo xamante ne yàlla bu la mayee sur combien de millions de Sénégalais. Mhm. nga toog nekkoon euh, ministre directeur de cabinet du président Wade. mu nekk une fonction bu nga xamante ne au sommet de l'État occupé nga ko y a des propos yoo xam ne waru koo génne parce que c'est une violation de la constitution. ah bon oui. C'est une violation de la Constitution. Ça veut dire que le président Macky Sall a été élu pour un mandat de 5 ans. yaa ngi Parce que wi jox ko ko mandat boobu jeexagul nga taxaw di laaj ay élections anticipées sans le président Macky Sall man dama jàpp ne que am na loo xamante ne mais Sénégal euh, je pense que. am na leneen lu mu xalaat lu mu waxul daal. am na leneen lu mu xalaat lu hmm. waxul mais nag li ma ciy wax rek mooy ne que. Hmm bi koy wax waroon na mën a xalaat ni que rek réew mi dafa nekk réew moo xam ne réewum droit la ay charte ñoo fi nekk. mais tamit daf ko def à travers benn peut-être euh, taxaw seetlu boo xamante ni am na ko ci jafe-jafe yu bëri yu am ci réew mi tamit loolu moom mën nga ko concéder. yan jafe-jafe ñoo am ci réew mi. jafe-jafe yi bëri nañ jafe-jafe foncier yaa ngi nii jafe-jafe maanaam crise bi niñ ko gérer ñu bëri ñu ngi wax ni Macky Sall day tâtonner ak et cetera et cetera loolu. c'est problématique. jafe-jafe lu mu am am ci réew mi. Mhm. li nga li nga wax ni.

s'il a une frustration, peut-être qu'il n'est pas expliqué ou qu'il n'est pas connu de tous, il peut l'expliquer aisément. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut le frustrer. Il devait faire partie de ceux qui cultivent le renforcement de l'état de droit au Sénégal. man dama gëm ne ko tey jii nii kenn waru ko woon jiitu ci ñi nga xamné ñom ñoy renforcer état droit au Sénégal ñi nga xamné ñom ñoy liguey pour respect constitution ak aussi ñi nga xam ne dañuy liggéey pour ñu gën a wormaal ñi nga xam ne institution yi ci réew mi président Macky Sall mandaam la am ñu ngi koy déroulé. d'accord di ko liggéeyal askan wi. d'accord guddi ak bëccëg ba fii may wax ak yow. Mhm. problème bu ñu teg ci réew mi rek. amul lenn loo xam ne gëm na ci bët bëtam. Mhm. problème mu ndengalee baa ngi nii. Mhm. ba coow li bëree da cay jël ay responsabilités te ñëpp xam nañ ne Babacar Ngom sédiment. problème Ndingler bi ba léegi pour fàttali la euh, résoudre ñu problème bi ba léegi. waaw ay solution temporaire rek lañ ci amagum. mais même buñ ko résoudre mhm. mën naa jàpp ne des débuts de solution mu ngi am te président bi ma xam. Mhm. xam ban attachement la am au rural xam li ko agriculture ak béykat ak ñi nga xam ne dañoo néew doole mu tabax taxaw ne day xeex li nga xam moom mooy inégalité sociale. Mhm. man gisuma ne que moom mooy jàpp waa Ndingler def leen naka sa doon wax ji nag mën na bëri. d'accord moom nag mën ta toog ci palais bi di liggéey réew mi di wax loo xamante ne xëy na. d'accord ak ay Habib Sy wala muy wax ak keneen. waaye lu ñu bëgg a leeral ci opinion nationale bi ak mhm. internationale bi. Mhm. mooy Habib Sy bu dee dafa yàkkamti wala bu dee dafa am mbër mbëram na toogaat te xam ne bësam. <laughs> da nga jàpp ne daa mbër bu mu ngeem.

lu nit ñi di wax dañ koy wax nii rek ci kaw waaye ci suuf duñu liggéey dara maanaam duñ ko exécuter tey yow nan nga jàngatee loolu est ce que tey jotul ñu am beneen jàngat boo xamante ni war nañ ko mën a am ci rapport yooyu la euh, d' abord damay wax ne que déclaration de patrimoine moom loi la et les textes sont faits pour être appliqués mm -hmm. je suis en phase avec le président de la république Macky Sall man bi ma ñëwee ba loi bi jotee mhm. sama ministre de tutelle envoyé ma correspondance bi ca biir semaine balaa dem def sama déclaration de patrimoine ñëw toog képp koo xam ne aussi comme ni ko loi bi waxee yaa ngi gérer un budget qui dépasse le milliard da nga war a dem def sa déclaration de patrimoine am na nag ñoo xam ne def nañ ko ñi nga xam ne defuñu ko aussi je pense que ñu ngi jël disposition yi pour def ko par rapport ak rapport IGE yi man li ma ciy wax rek mooy ne que euh, IGE institution la ba nga xamante ne day def liggéeyam pour nous renforcer la transparence et la bonne gouvernance C'est l'aide de mission est président de la république Donc, le donc président de la république il la a am pas passe ak tey la debout a am engagement pour l'état de droit pour la bonne gouvernance la transparence dans le pays Ce nga je pense que s'il y a des gens qui ont des choses à se reprocher aussi comme une des personnes externes wala internes c'est-à-dire nous avons une ñu ngi ci mouvance présidentielle bi mhm. bon nous aussi ku ci nekk nga tirer conséquences mhm. parce que je pense que une gestion surtout une gestion bi nga euh, c'est c'est c'est une gestion des des deniers publics euh, c'est une lourde responsabilité mhm. c'est une lourde responsabilité ba nga maintenir. Tout du dërëm boo xam ne sa yaay moo ko ci voilà, wala sa papa moo ko ci moom wala moom moo ko ci bopp xaalisu askan wi donc foofu li ma ciy wax rek mooy président Macky mën naa jàpp ne que nekk pour protéger ma Demba nekk fi pour protéger ma Samba. Mhm. moom li ko yittee mooy institution wala. structure yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. Mhm. muy cour des comptes muy IG muy ñeneen. moy mhm. ñu def seen liguey comme ni ko wara défé mais président amul lu muy neub amul lu muy làq la amul leneen. d'accord donc man dal côté bobu la jaajëfal nañ la bu baax euh, lolu lérna na ñu lay euh, bàyyi rek nga tàggatoo ak euh, sunu mbokk internet yi.

doon avion gën a dem ñuy dégg Sénégal fu sore sore. jóg ñuy dégg Sénégal fu sore sore waaye yéen tamit euh, sunuy mbokk internet di leen jaajëfal di jaajëfal toute l' équipe qui nous a accompagné di jaajëfal aussi Demba Diagne euh, ci euh, maanaam côté technique bi di leen remercier yéen aussi suñu mbokk internet yi te di leen jox très prochainement rendez ci beneen entretien merci.